mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu nu leen sante gërëm leen ci la paase ñu dellu seeg yéen ci naafile yi ni amal ci weeru koor wi ñu koy amee ci sunu site bi ni wax sunu ak di ci ànd ci téere xuratul xayni bu sëriñ son yi bi tey ji ñu nekk ci guddeeg fukkeel ak juróom-ñett guddeeg fukkeel ak juróom-ñett dinañ ci julli fukki rakka rakka bu nekk nañ ci jàng fatiha ak sabbi xisma ak qul yaa yu alkaafiroon ak qul huwallaahu lu ci nekk benn yoon lañ koy jàng ñu fàttali leen guddik fukkeel ak juróom ñett danañ ci julli fukki rakka rakka bu nekk ni jàng ci fatiha ak sabbi xisma ak qul yaa yu alkaafiroon ak qul huwallaahu lu ci nekk benn yoon mbokk yi yal na yàlla nangul leen te nangul nu ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaman maadudat ya xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wasadadi